waxuwa te moom aadama xuliqa bindeef na ko min tiini turaabi ci banub suuf ne cosaan li moom ñépp ko bokkule muy aadam ndax aadama la yàlla tabaxe ci ban wàccaw ruu muy batiku génne soxnaam xawaa ci ak faaram nga xam ne ci faaruk aadama ci la yàlla génne xawaa muy soxnaam bu fekkee ci sàlli lenn la kon kenn mënta gëne moroom ma ci kaw rekk cosaan ndax cosaan li moom lenn la kon ragal yàlla rek mooy li nga xam ne mooy teqale jaami yàlla yi ba tax suñu boroom ne inna akramakum xindallaahi atqaakum hadis ba nee na bu àllaaxiraa dana am ku jéptaane ci ndigalul yàlla ne nit ñi man day damaa defoon askan ne askan wi moo gën a tedd te mooy ragal yàlla yéen ngeen bañ di tudd yeneeni askan di ko damoo naa man maay doomi diw man maay doomi diw tey nag askan wu waaye mës a yëkkati danaa ko daaneel yëkkati sama askan dong te mooy ragal yàlla ana ña ragaloon yàlla dal leen di dugal àjjana ñoom ña ragaloon yàlla mooy inna munaadiyan yunaadi fil axira ayuha nnaasu inni jaaltu lakum nasaba fa qultu inna akramakum xindallahi atqaakum fa abaytum illa an taqulu fulaan ubnu fulaan fal yawma adahu nasabakum wa arfau nasabi ayna almuttaquun fa yudxiluhum aljanna nee nañu daa am benn waay bu mas di damonteeg moroom ma naa ko maa la di ko wax naa ko maa la gën cosaanul ndey maa la gën cosaanul baay di wàññi naa ko maay doomi diw maay doomi diw ba wàññi juróom-ñaari maam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróom-ñaar ñi nga wàññi yépp leen damoo ñoom ñépp ña nga sawara moo tax ñu bëgg nag koo gis rek am wet goo seet ba ne moo ma tane moo ma gën bu dee gone nga jàpp ne moom moyagut yàlla ndax kenn tàmbali ku ko bindal bàkkaar yow mi mag nag nga jàpp ne bari nga ay moy te xamoo jéggal nañ la ko am déet bu dee mag mu la ëppi at nga jàpp ni moom day moo la gën ndax jaamu na yàlla loo xam ne jaamuwoo ko ko bu dee boroom xam-xam nga ne ah kii de moom moo ma gën ndax yàlla may na ko loo xam ne man mayuma ko bu dee ku réer koo xam ne xamutit nga ne ah xam naa ne rekk moo ma gën ndax bu mooyee yàlla itam ci ñàkk xam la man nag mooy na man nag mooy naa yàlla ba tey ci loo xam ne xam naa ko te maa ko tey boole ci ne xawma it lu ko yàllay mujjale ak man mi lu ma yàllay mujjale bu dee koo xam ne yéen a yemoon ak ci wet yépp itam ci zahir nga jàpp ne rek yow xamoo baatin te boo demee am na lu yàlla def ca moom te defu ko ci yow te xamoo it luy ak mujjam ak lu di sag mucc amma dawaawul xuj bi daal saafaras aaw aaw mooy gis sa bopp naw sa jëf fii maa ci la nga xam ne nuqi la toxaleef na ko an yaalama moo di bu xamee alxaabidu aji jaamu ja ne am nal xamala naka jëf ja lay sa lëxoo déet mu koy ñeel li kaw ni xii ngir bu nekkam mu dal lalan di ko ñu tàggat nee na naw jëf mu ëpp naa def ndax lu jëf ji rëy rëy rek xamal ne yàllaa la ko baax awee ko ci yow rek waaye ci dëgg-dëgg jëfoo ko mi ngi mel ne ab gopp bu rafetee mbay te gaawle ko dugub baa neex wagg yaa neex ka ko yor ka yor gopp ba di bay mooy bay waaye jëmi gopp bi ci boppam bayut wa annahu ak naka moom yum kilo dana jàpp ni an laa yuqbala bu def ko nangu te mu ne itam jëf jëkkat ma tëggut a naaw ndax nangu ga rekk ci am solo te xamagoo ba xam yàlla nangu na koom déet wa annahu ak naka moom maazala dañu za taq siirin di boroomu gàttañ lu fii ci moom ba tey kat jëf ci nee na mëtt naw ndax li ci ëpp doomi aadama li ñuy wax gàttañ lu faaw mu def ko gàttañ lu mooy xam ne nii la gën a baaxe waaye rek bëggum nooflaay ba tax defiwu ko noona daanaka doomi aadama di ci mucc nu mu defee rek mën naa def nu gën noona wala mu ji te dikkewut bi kan naqiiri ci lu toll ni naqiir fii jam bi maa ci wàllu la nga xam ne àllahi war na ko min xaqil jalili ci àqi aji màgg ja bal li fi nekk la mu ji dikkewut di darratin ci lu toll ni aw sangalañ wala fatilin du caageenu fatil te it nee na jaam bi naw ay jëfam dafa gaaw a naw rek waaye bu seetlu woon la ko war digganteem ak yàlla li mu ci def da ci tuuti lool daanaka du ci toll ne aw sangalañ du ci toll ne fatil wa anna man ak naka koo xam ne i'tamada sukkandiku na xalaa siwallaahi ci lu dul yàlla taxallaa mu rekkiku an hu walis ko wa tawaate mu alku yow man nakka di ci bisub tiis wa te it ku sukkandikoo lu dul yàlla ni ki sukkandikoo jëfum rek mbaa leneen yàlla di ko seetaan ak loolee mu sukkandikoo ba xam nu muy def su boobaa rek mu daldi al ko wa rubbama ibadatin baraana ak jaamu kathiratun guy aji bari qad afsadatha yàq na ko lahzatun ak gendiku xaqiratun bi aji xeebu nee na jaamu yàlla mën naa bari téere waaye bu ko boroom geesoo geesug naweel bu tuutee tuuti rek lépp dal yàqu yàlla du ca nangu dara laa yam bax yi du yell lil xam di ñeel ab jaam daawa xazamati qurbati yi woote rëyug jaamam nga woote màggug jaamam nga li rabbi yi ñeel boroomam di ni amati kay boroom xeewal ab jaam daal lu mu def ci digganteem ak boroomam rek da ko war a xeeb waaye wërta naw dara lu mu def ci digganteem ak boroomam moo tax suñu boroom tagg na ñi nga xam ne dañuy def lu baax ba noppi nag seen xol di jàq ne ñoom day boo demee yàlla nangulu leen mooy wallazina yu'toona maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ay yaf'aluna ma yaf'aluna min at-ta'ati wa hum khaifuna min liqa'i Allahi bi tilka at-ta'ati ihtiqaran laha naw jëf nag nee nañu lu jafee mucc la ku amuk yeewu bu baax a baax te bari seetlu rek moo ko mën a xam am na ku ñu wax xataa waa ju baax la woon yàlla da koo mayoon ci mën a ràbb ay sér mu ràbb nag benn sér sonn ca lool defar ko defar ba yaakaar ne daal amul benn benn sikk nakam ko yóbbu ca marché ba ñu ne ko lii sikk la lii sikk la lii sikk la lim sikk yow mu bari lool xataa jël yére ba tàmbali jooy ña ko doon wax sikk ya réccu lañ ko wax ba nangu koo jox njëggam ko doon jaaye xataa ni leen man day li ngeen foog ak li am bokkut man damaa jàpp ne ab liggéeykat laa boo xam ne mecc mi ku ci xarala laa lépp lu ma mën rek ci xeetu xarala def naa ko ci yére bile ba defe woon ne benn benn sikk nekku ci te bi ma ñëwee nag wan leen ko yéen ñi xam ngeen wan ma ci ay sikk yu bare bare bare li ma tax a jooy nag mooy li may jëfal saa boroom ci xeeti jëf yàlla bu ma dem ca moom mu ne ma lii sikk la lii sikk la lii sikk la mel ne kon fii mu nekk bari na sikk yu ma xamut ci sama jëf sama digganteeg sama boroom loolu day moo ma tax a jooy jooy yi waaye du jëmmi yére bi ak njëkk ngeen ma ci fay ak sikk yi ngeen ci wax nee nañu nag naw jëf moog rëy moom am nañ ak teqale ndax réew yi ñu ko waxe woon faaw rek am kum réew lu ci kawam maanaam faaw mu jàpp ne am na martaba keneen am martaba te moom nag moo féete kaw kooka nga xam ne nga xam ne bu fekkoon ne kenn képp la yàlla sàkk moom du mën a rëy te nag naw boppam moom lu yomb la bu yàlla sàkkoon kenn képp itam moom def lu mu naw rek dali ko yomb dañuy wax naa wal farqu bayna al xujubi wa bayna al kibri an al kibra yastadhi mutakabbaran alayhi wal xujubu laa yastadhi غير المعجب فلو لم يخلق الله إلا إنسانا واحدا صح أن يكون معجبا ولا يصح أن يكون متكبرا لأنه لم يكن معه من يتكبر عليه كي وخ الأنتاكي دانا وخنا توب يالا داي كا غنا بون موي غنا تاخا فاتي say ñaawteef saa yu defee topp yàlla rek daal di fàtte la nga defoon ci lu bon mel ne kon topp yàlla ga moom nga gis ba tax nga fàtte say ñaawteef kon nee na moom antaak yi topp yàlla gu la fàttali yu baax ya nga defoon fàtte loolu yu bon ya nga weesu woon daal googa topp yàlla moo yées ci xeeti topp yàlla yi am na kenn ku ne wenn waxtu rek moo toog xalaat ba xeeb sa bopp moo gën jaamu goo jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at ñoom ñu baax ñi leen daa wax naa su fekkee ragaloo yàlla mbugal la ci sa jëf yi gën a baax kon xamal ne yaa ngi ci buntu alkande dañoo jëlale sa jëf yi bon waaye sa jëf yi gën a baax ci nga war a gën a ragal yàlla mbugal la ca rawante na nag kon safaaniya am na ku baax ku daa wax naa man day su samay jëf yu baax néewee laay am yaakaar ci yàlla loola day wane ni moom daa sukkandiku ci mbaaxu yàlla waaye sukkandikuwul ci ay jëfam dañuy wax ne nag mucc ci naw sa jëf lu jafe jafe la ndax jëpp jëf ju baax joo def ba tax nga defe ne gën nga mbaa tane nga ka ko deful rekk dal ngay naw sa jëf te lool nag day lu yomba yomb fi mu nekk nii bu sëñ bi wootee ne nañu def nàngam su la yàlla dimbalee ba nga dem soo defee ne yaa tane ka demul rekk dal ngay naw sa jëf bu sëñ bi ne lu waay man na ko def ci liggéey bu yàlla bii soo ca defee loo xam ne keneen defu ko mbaa yaa ko ëppale ba tax nga defee ne gën nga ko rek tane nga ko rek ba tey kon dal ngay naw sa jëf kon nag lépp lu yàlla baaxe ba nga def ko nga gis sa moroomum jaam moo xam ne moom defu ko da ngay sant yàlla rek ñaan yàlla yokkal la lu baax loolee te moom ma nga xam ne defu ko nit yàlla taw fi xale ko mu def ko mbaa mu def lu ko gën saa yoo gisee ne jëf yi nga jëf tax na nga féete kaw ka nga xamee ne jëfut la nga jëf rek su boobaa naw nga sa jëf tàmbali naa wax li koy faj mooy lim njëkk a wax mooy nga xam ne jëf ji jëfoo ko ci dëgg-dëgg yàlla la ko baaxee jaare ko ci yow rek ñu la koy askane ndax ne am nga cag fàggu kon nga war a sant waaye waru caa naw sa bopp jëf ji du sa jëf lim ci teg nag mooy jëf ji kat ndega moom xamoo yàlla nangu na koom déet mataguta naw ak a gis sa bopp ndax jëf moom nangu ga dong mooy tax mu am solo kon rek mu xamoo ba xam nangu nañ koom déet jërëguta naw ak a gis nee nañu mën ngaa nattale ne jaam bi bu jëfoon jëf jëf yiw yu bare bare bari ba toll ne feppi suuf si te mësta mooy yàlla benn benn yoon it mën na am rek mu dem alaxira yàlla ne ko jëf ji nanguwuma ci dara dara dara ndegam loolu mën naa nekk nag kon jaam bi lu jëfam nuru nuru lu bari daa war a sant te tuub aka yaakaar rek yàlla nangul ko te bañ a naw nag dara dara ci jëfam xaqiqatu sumhati dëgg-dëggi ndéggatal bu dee fii xawli rado yi muy ci waxi kañu gërëm boo ne nag fil xawli ca wax ja ar rado yi jëriñ gërëm ba tey baax na ixbaaru saayin moo di xabaar jëf saalixin judi aji yiw li garadin ngir xememteef maanaam ngir bëgg-bëgg yun sabu bopp def na ko askan li duniyaa jëm ci àdduna kamad hin niki ak tagg waa xajabin ak bu yéem waxiye moom nag waxtun mbokk la ngir riyaa ñeel ngistal fi nasabi ci askan ndéggtal moo di jëfoon na jëf ju baax ju sell ngir yàlla waaye daawul bëtiku nag nettali ko te la tax mu nettali ko moom àdduna dong la niki bëgg ñu tagg ko ca mbaa ñu naw ko ca mbaa bu ko nettaliwut ragal nañu xas ko ca mbaa xëy na bu ko nettalee ñu jox ko ca alal moom daal yi tax a ngistal rek mooy sabab itam nettali jëf ju baax ju demee noonu moom nag moo ngistal dañoo xaw a nuroo teyit ni ngistal di yàqe jëf noonu la jëf lu baax ba noppi nettali ko te yàlla taxut di yàqi jëf moom itam waaye moom nag nee nañu su ko tuubee rek jëf ji delluwaat baaxaat mu am ca tuyaaba te ngistal nag moom bu xasee daanu rek daanu na am mar riyaa u ndaal ngistal fa huwa moom an yasxa moo di bu jëfee alfata cam sa li qasdi taazimil wara ngir jublu màggaluk mbindeef yi in sabata ndem sax na aw jalbi xayrin wala ñoddi aw yiw aw li daf hi sharri wala ngir jiñ aw ay ka talabil maali ni ki sàkku alal wa xaw fi durri ak ngir ragal lor mu jàll si ci ngistal xamle ko door a wax la koy faj mook ndéggtal ma nga weesu ngistal mooy jëf-jëf joo xam ne yàllay kese-kese taxut mën naa am mu bëgg ku ko màggal mbaa mu ragal aw xas tax mu def ko mbaa mu bëgg alal mbaa aw tagg tax mu def ko waaye daal yàlla yi kese-kese taxut balaa doon ak sellal rek mu jëf jëfu jëte yàlla yi kese-kese tax waxtana foo wute nañu fii xasti yi ci jubloom ga adduniyaa adduna itaalam yan wi ndéem yéene wut xayran aw yiw maxa ànd ak adduna ja dañoo wute ci jëfi àllaaxira bu ko jaam bi defee te bëgg ca àdduna nga xam ne yónniwaalewu ca bu amee àdduna ja jëmale ko ci topp moom daal taxul sax nag mu geesu ca nit ñi di ca bëggu tagg mbaa ragalu ŋàññ mbaa dara luy bàyyi ko ca nit ña jëm si ci moom waaye moom daal jëf ja jëf yi àllaaxira la te it lam ci wut moom àdduna la mel ne mu jàng sóoratul waaqiya te jublu ca bari wërsëgu àdduna wala mu jàng li ñu wax ne ku ko jàng da nga mucc mu jàng ko jublu ca mucc rekk lu mel noonu daa mel ne kon jëf na jëfi alaaxira te jublu ca àdduna bu fekkee nag boolewu ci yéene su baree wërsëg jëmale ko ci ngërëmul yàlla ak su muccee mën a taxaw ci lu koy may ngërëm su fekk yéene wuute jooju yéene ca la ñuy wuute ba xam jëf ji sell na amul ngistal wala sellut am na ngistal ndax boo toppee alxaraaf yi moom ni mu waxee jëf ju mel noonu sell na amul ngistal waaye boo toppee alxazaali yi moom jëf jooju ndegam kooko yéeniwu ci aw yiw yéeniwu ci bu amee àdduna ji jëmale ko ci ngërëmul yàlla rek day jàpp ne kon loolu sellut ngistal la li tax mu ne ida lam yenn wi ndéem yéeniwut xayran aw yiw maaxa ànd ak àdduna ja daa bëgg wax ne bu fekkee ne jëf joojee muy jëf àdduna la ci jubluwaaye da caa yéenewaale aw yiw te mooy bu amee àdduna ja defaree ko alaxiraam ne ki jëf ja muy jëf te jublu ci àdduna ne ki wërsëgu àdduna bu ko amee itam da koy jëmale ci topp yàlla rek ak lu yàlla gërëm su boobaa kon kenn natt baliwul ne ak sellal la waaye nekkatul ngistal ndax ni ko sëñ bi xamle woon te bañ ko laajee adduna mooy li dox diggante suuf si ak asamaani adduna si lu ci waay bëgg te yàlla tax maanaam lu ci waay bëgg te bëgg koo defaree àllaaxira kon yàlla la bëgg bëggul adduna lu ci waay bëgg nag te yàlla taxut kon adduna la bëgg kon takk-takk bi mooy rek jëf ji muy jëf muy jëfi àllaaxira ni ki jàng dara ci alxuraan mbaa jàng ak ñaan te jublu ca am àdduna bu fekkee daa bëgg bu amee àdduna ja defaree ko àllaaxiraam kon du nekk ngistal ak bëgg yàlla lay doon ak sellal lay doon su jàngee nag dara ci alxuraan mbaa genn ñaan jublu ca am àdduna te àdduna ja jubluwu ko defaree àllaaxira xanaa bakkanam ak bànneexam ak yu demee noonu moo tax su boobaa nag ca la ñuy wuute alxazaali yi wax ne ngistal la te it du ak sellal alxaraaf yi ne déedéet ndegam nit ñi taxu koo jëf rek jëf ga mu jëf jëf yi àllaaxira te bëgg ca am àdduna ne ki koy aji te bëgg ci alal du ca wàññi dara teewu koo nekk ak sellal teewul jëf ja baax foofu la wute gi nekk ama isa lam takku ndaal dem nekkut fii ci moom haasihi yile fa innahu naka moom yu duxaa def na ko wooye bi ixlaasin ci ak sellal fa atxin na nga xereñe sha'nahu mbiram bu fekkee nag jëf ja yàlla kese kese moo tax nga xam ne daray àdduna mbaa bëgg aw tàgg mbaa bañ aw xas mbaa bëgg alal mbaa daray àdduna taxut yàlla kese kese moo tax waaw loolu kon moo tudd sellal sellal mooy jëf joo xam ne ñu ko def le yàlla kese kese tax wa man yakun ku nekk daltifaatin di boroomu geestu lil xalqi jëm ci mbindeef yi fii sa'yihi ci jëfam fa aatin kon aji dikke la biriyaayin ci ngistal na xam waaw walaw xalaa ak doonte wéetoon na koo xam ne jëf ja muy jëf ma nga cay gestu mi dee fi rek kon ak ñàkk sell am na ca ngistal am na ca doonte sax yooyu jamono moom rek nekkut ak kenn itam waaye ma ngay gestu mi dee fi rek ca la muy jëf na xam ne kon sellut mën naa wéet di jëf te du tee mu geestu mbindeef yi maanaam bàyyi xel mbindeef yi mel ne bu dee yër téere xam-xam yi di gëstu xam-xam muy farlu ci gëstu masala yi nga xam ne dañoo jafe te ràbbaloo bu ko defee nag mu di ko ber di ca sonn xam ne masara yooyu niñ jafee nu mu ko xereñee noonu daal daañu ko ca tagg naw ko ca yéem ko ca loolu geestu mbindeef yi la ci googu wàll wala muy taalif am na mu taalifi taalif wa noo xam ne nit ñee tax waaye rekk yëmut ci seet digganteem ak boroomam ca la muy bind ak taalif lu mel noonu ak ñàkk sellal lañ koy tuddee wa illaa ndeem geestuwul menn mi def nag fa yu àddu kon def na ku lim min muxlisil ibaadi mu bokk ci way sellali jaam ña xay suma xasada fu mën di jublu walaw saxaa ak doonte jëfoon na bañ na waraa ci diggante mbindeef yi kullihim képp ci ñoom li kaw nihim ngi seenu nekk fii xal bi ci xolam kal xadam yi mel ni ak ñàkk nee na bu fekkee ne li muy def yàlla kese kese moo tax moom doonte doonte mbooloo mu lu jeex ñoo ko war muy jëfit waaye moom géesuwu leen yàlla rek moo ko tax di def na ko wóor ne kon sellal na ndax xol bi la yàlla soxla te ci xolam moom géesu ca mbindeef ya yàlla rek moo ko tax di def wa minhu bokk na ci ngistal saayul mar'i jëfuk cam si lit taqarru bi ngir jegeñlu min xadarati rahmaani ci péyub aji yërëme ja xinda nuxu bi fatànneef ya nit yi yàlla yi dëgg-dëgg dafa am nu ñu jàppee sellal ñu bokkut ak nit yi kese yi dañuy jàpp ne sellal mooy nga jàpp ne yàlla daal màgg na màggaay goo xam ne ku ne rekk war na koo jaamu ak doonte sax diglewutoon ku ko jaamu ku koy jaamu da nga koy jaamu rek ngir xam ne yeewoo naa jaamu waaye doo ko jaamu ngir dara dara dara dara ñu ne boo ko dee jaamu ngir bëgg mu boole la ci wàll yi nga bokk ci waa péey ba loolu gistal la ci ñoom ak ñàkk a sell la gu wér a wér ndax looy defal yàlla te bëgg mu am lu mu la ca defal rek day mel ne kon da nga koy liggéeyal rek ngir bëgg mu fay la loolu na bu dee ci ñoom du ko sellal moom dañuy wax ni sax kuy jaamu yàlla di ko sonnal ngir bëgg mu def la wàll yu mën naa am sax nga yéega yéeg ba jege pay ba ñu sëlëx la ba wax la nga daanu nee la yow kat yow bokk ci wàll yi ña ko yeyoo mooy ña nga xam ne dañuy jaamu buur bi rekk ngir xam ne buur bu sell la bu yeyoo ñu jaamu ko kon benn xeetu ngis talangoog boo xam ne bu dee ci ni waa ahlu tasawuf di seete moom ngistal la waaye bu dee ci li ñuy seete jëfi ab jaam kese kese rek moom du ngistal ak sellal la moom it bokk na ci ngistal saa yu ko sëg jëf lil istihlaay ngir neexlu ba tey bii ngistal la bu dee ci ñoom waa tasawuf waaye bu dee ci nitu kese dong moom du ngistal gu aay maanaam la yàlla santaani daal daa tombeek mu neex la boo koy def di ci am bànneex bànneex ba tax nag nga sëgg ci rekk day mel ne kon ci saahir yàlla ngay jaamu te bu dee ci baatin moom maanaam bu dee ci biir sa wàllu bakkan ngay jaamu nee nañu ci jamonoy banu Israël dafa aman jaamukat yàlla boo xam ne doon na jaamu yàlla bu baax a baax waaye yàlla daa wax yonente boobee jamono ne ko neel diw na jéem a sellal ci jëf yi muy jëf ndaxte kat wàllu ba kanam neex gu ko la muy def neex ci moom rek moo ko tax di def waaye sama jëmm ji kese kese tax koy def bu fekkee yëggum ci yëg bànneex rek moo tax mu xër ca day mel ne kon kuy jaamu yàlla ci zahir waaye ci baatin moom wàllu ba kanam lay jaamu dafa toll woon ci di wax naa bu amee lu yoon santaane nga di ko def nag ci kaw dafa neex ci sa bakkan ndax yàllaa def rekk mu neex la loolu bu dee ci nit yàlla yi ak ñàkk sellal la waaye nag bu dee ci nit yi kese yi moom dara nekku ca foofu nag am na teqale bu dee kuy dóor a jóg yenu ndigal yi neex ci bakkanam yenn ndigal yi naqari ci bakkanam mu topp nag ya nga xam ne ñoo ko neex rek noonu di ko bari lool teewul nag muy jëfe la war a jëfe yi ci des waaye yenn yi daal neex gañ ko neex tax na mu di ko baril topp neexit wa kooku lañ ne kooku lañ ne wàllu bakkanam ma nga ca biir bu wér a wér bi ci des nag mooy bu fekkee ne kooka dafa jihaat ak bakkanam farlu ci yoonu yàlla dama dem ba nga xamee ne dara